Bienvenue sur Salam Vision. Euh. fekk na ma ay jàng déclaré ko moom mag bi ne ma ñëw leen ci kayit bi wax ko xaas ne ko kayit bi décret bi wàcc muy tëri soxbaar bi tuddee nañ bu sëriñ si bu dee wàcc moom sëriñ fan moom def ku bëgg lu baax nit boo xamante ne la sëriñ Fallu jaral bari xaas yaa bëgg sëriñ Seexu bi xaas yaa wóoru sëriñ Seex xaas yaa jox sa lépp sëriñ Seexu bi bàcc moom sëriñ Fallu moo ngi ñaan yàlla doon na jàmm ci wér ci barke sëriñ Fallu waaw monsieur maa ngi lay sant bu baax jërëjëf di sant Omar Diawriñ sant yi teg sa loxo di sant Soxna Daba Sarr bi maa ngi sant samay famille bopp ña ma bokkal ndey ak baay ña ma bokkal baay ak ña bokkal ndey maa ngi leen sant yéen ñëpp di sant sama yaay yu nekk si koñ bi yu nekk si kër ga soxna Daba kamara meen Ndey Aana maa ngi leen sant bu baax ak maire yi nekk si koñ bi yëpp maire Awa ba maire Ami Faye maire yëpp maa ngi leen sant bopp cat ba cat maa ngi sant ñëpp ndax sama mbokk yi jóge nañ Kaolack ñëw sama mbokk yi ñoom ñëpp jóge nañ Kaolack ñëw kon maa ngi leen sant bu baax a baax di sant sama ñaari soxna di sant soxna Awa Ndiaye di ko ñaanal yàlla suñu borom guddal fanam ndax nit bu ji bu jiitoo si kër te ba muy jiitu si kër gi boobu melowoon nenn kon lépp mooma kon yàlla na ko yàlla defal jàmm ndax dafa am xew-xew boo xam ne dafa am te Omar wax na ko muy suñ jigéen suñ sœur moo fi bàyyi ko muy soxna faama bi sama magu soxna deuxième femme ñoom ñaan ñu bokk ndey ak baay ñu bokk maam tamit kon yal na ko yal na ko yàlla yërëm sëñ bi kàddu ya may wax kàddu mbégte la kàddu sant sant ndax man damay far wax ni awma kenn ku dul yow yoonu murit wallahi azim nit nag mun na la sama mais gën la yombul tey jii sëñ taxaa yàlla na fi yàgg tawér bu toogoon fële nga toog fële sa dàll laay téye sëñ Muntaxa muy sëriñ tuubaa tey jii bu toogoon fële sëñ bi toog fële ñoom ñaan ñu summi seen dàll dàll sëñ bi laay téye ndax moom moom laa xam ndax ku la abalu bët fa la neex ngay xoole moom ma abal ay bët ndax mbooloo mi yëpp bu nee jëwriñ as jëwriñ as moom mii la ndax bu ma ko waxoon du ma doon jëwriñ tey bu ma génnee fii ñu ma ñu may jaawale mbàkke mbàkke di ma di ma sant la mbàkke wala di ma jox addiya jëmmam ji la almaam yi lu mu wax dëgg la bada mii lu mu wax dëgg kii lu mu wax si man dëgg la bada ak Modou Ba ak almaam lu mu wax si man dëgg la kon mbàkke yal na yàlla guddal sa fan dafa am loo xam ne nag suñ boroom da koo def man maa bëgg kii jëmm ji man maa ko bëgg Amadou Diarra man man maa ko bëgg ba mu ba muy ba muy xëccoo maire bu njëkk ba muy ñëw di seet si Modou Ba dini seet si fii boobu laa ko njëkk man dama la gis sa bëgg la te yàlla tax boobu musuma dem maireem musuma lekk en franc am mais man maa ko bëggoon te yàlla doo nga tax mu ñëw jaxasoo jëmm jii te dañu ne ku fonk sa kilifa nga boo boo doonee ni da nga ko war a fonk te dafa fonk suñ kilifa monsieur Badou Ndiouk dafa fonk suñ kilifa Njawar dafa fonk suñ kilifa Assane dafa fonk suñ kilifa Abdou Aziz dafa fonk suñ kilifa kon ku fonk sa kilifa da nga ko war a fonk man damay war a faral di wax ni ñaari meer laa am muy Amadou Diarra mi ak Modou Gueye est-ce xam nga lii ma sol nii Modou Gueye moo ma ko jox président Modou Gueye wallaay Azim moo ma jox lii ma sol moo ma ko yónnee fii ba ba ma yuy téléphone fii boobu sëñ bi ñëwagul jara ñëwagul. waaw barke Serigne Touba si laa jox Mathiam mi sama téléphone ma ne wuyul kama kamay woo Modou Gueye moo ma booleeg moom. kon ku ka fa nekkal Modou Gueye ne ko bu ngeen demee ne Modou Gueye jërëjëf sant naa bëgg naa ndax ñoom samay xarit lan damay far di wax ni ku si nekk lam am lay demee marché man nag sëñ Fallou laa am moom laay demee marché moo tax sëñ bi ma bëgg ñii coow lii dafa bëri bëri na si Amadou Diarra bëri na si Modou Gueye te coow li la ko waral rek mooy mairie bi man man man nag musuma gëm carte nag man man As mu suma gëm carte ay kart dem carte gagné musuma ko gëm man baatuñ laa mos a gëm moom ndax ma ko deg mooy magam bu baax ba Cheikh Cheikh Cheikh Modou Moustapha Fallilou te ba mu koy wax boobu boobu boobu maa ngi koy déglu rajo mu koy wax ba muy wax Abdou juuf bu leen nit di voteelu ma dem daaru man naa dem taal kono yi maa ngi koy dégg ñun ñëpp képp kuy murit boobu nga xam ne ma bagage yaa ngi daaru man naan kër sëñ Fallou bi foofu man baatin laa gëm kon sëñ bi nga dimbale ñu si Amadou Diarra ak Modou Gueye ak Timbo suñu borom dimbale leen ndax buñ ko gañee kii boo gañee Pikine Nord gii Modou Gueye gañee ji da caare ko ñun ñii duñ sonn ji nga riib yi wallahi azim barke Serigne fallu Mbacke la ma gëm mooy Serigne Cheikh mi la nga koy tuddee ndax décret boobu topp naa ko dem naa si Cheikh Dieng ba tàyyi topp ko pour ñu génne décret boobu ñu téye ko te xam naa ne Modou Gueye bu ko bu ko gañee dina ma génne décret boobu loolu laa gëm te tali bi tant que tuddee wuñu ko Serigne wallaay azum du ma am lu ma lu ma gënal ndax maa ko sumb man ak bada mii te naa ko eggale xanaa suñu borom jël sama bakkan man loolu laa gëm kon Mbàkke jërëjëf dafa am loo xam ne nag dama ko doon def nit looy def ay ati at mu jig la da nga koy def almaami araftu naa ko ba taay na ko almaami toogal toogal ndax dafa am loo xam ne sama wàll la man maa ko moom ndax kii man la ñëwal man man la ñëwal ma am nag lu ma bëgg lu ma bëgg te la ma bëgg du ma ko utee si ñenn monsieur le maire Amadou Diarra Badou Ndiouk Abdou Aziz Njawar Assane Diop si si yéen ya ana Soda Ndiaye ñëw na Soda Ndiaye ana ñaañam yéen laa bëgg ku nekk na génn cinquante mille jox ma bu ngeen bëggee ku ku ne ah bokkoo damay jaayante ka bëgg ndax lii muy xëccoo nekkul ay wax moo koy jël fetal balaay tàq day am bal monsieur le maire yaa fa nekkal tim ba du njug duma fa jaara muy doonaat répétition mais sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp Moussa Diarra monsieur Amadou Diarra yow sa bos waaw sa bos waaw yóbbaale ñëpp géew waaw fukk ana Omar yóbbaale na ñëpp teel ma ni dam siy dolli fukki junni léegi nag as indi ma teel la lii nga génne fukki junni léegi teg na ci fukki junni jël doon béykat yoo solo yooyee xam naa fekk bu mun a wotee ci ginnaaw ba ba ñu ngi koy saa fekkal xalaat jaay naa sama bureau bi li muy tudd di sama diggante yow jaay naa ko jënd ko li nga am li Sëriñ Tuubaa am na dafa yàgg bakk ak ah, tuuti man dañuy seede ci moom bu guddul yow ak lu ma la ko loolu ñoo xam ne day waxtaan ak ñun ci biir di waxtaan ak ñun ci biir bu mbir mu yëngoo ba yëngu aas ma la bëgg te ñun xam nañ man nag damaa seeg yow man ku la xool ma xool ku la du mooy ma xool noonu laa nekk di la jëfat ba boole ci ay caaxaan ba ko nag man dañ may tudd dañ may tudd li man lañ war a ndax li tax loolu mooy ñun say tur tànk la yaa ngi lépp as nii rek ñun dañoo xam ne xam ne sa a def def na lu mat a wax wax ba suñ jot yàlla yi tey suñu xaaral ko xoolal suñu si yokku loolu xam naa li ñëpp yi def maanaam na ko bu ko neexoon di solo ko suñu ndax nag mbir mi moom dañ koy kaññe te jëf na bi nga ko war a mën a may loolu nag bu ko neexoon di fuggale ak wax leneen taalibeem boobu nag moo wanewaat tey jii da nga nangul ko ko parce que dañoo bëgg man maay wax man seen moom dama bëgg bu jógee fii mu yéene woon te bëgg ko mu am mu yéene woon te bëgg ko mu am man damaa fas yéene bëgg naa aas mi bokk ci ñi daa dee di fan dama loolu laa bëgg sëriñ bi yàlla daa def ci sa ñi nga xam ne ñooy seen taalibe bëggul lu ñëw fu mbir mën a yëngoo faale wuñ lu mbir mën a koor koor koor suñu ñëpp ñëw di ñun yow lañ xool ak mii nag tey suñu jëw man moom bàyyi as laa ko wax ndax def ma lépp bàkke ci sa ci sama ndigalal kilifa Serigne Fam man ab taalibe rek laa waaye nag lii mu def man ku ab taalibe dawee rek sama deret yow ndax loolee sëñ Fallu ndax dafa jaayoo jural ka jënd ko taaj ba ko koy jottali sax moom waxee ne suñu Fallu Mbàkke nee na nee na ab taalibe rek dana ko déedéet du ma taalibe déedéet du ma taalibe du ma dara mu bañ a wax dara suñu ko déedéet du dara naa dugg ci biir sëñ buñ koy tudd di ma tudd kon nag ñun ñëpp loolu lañ fas yéene doon ay taalibe lañ fas yéene doon monsieur wala wax ne wax nga fee wax ñu bëri boobaa léegi man léegi ànd naa sëñ ñëw sa kër waaye nag ñun ñi nga xam ne jàppatu ko ñi nga xam ne jàpp nañ ko jàpp nañ waaye nag damaa ko wax nga ne sëñ bu la woowee nga am ay million wala nga am ay wala nga am nangam wala nga am yëpp jot na lu ñëwagul rek day jot waaye du jot te moom mii kat xam nañ ko bu baax suñ wàllu waxatuwul nag ñun nag moom la ñu am bu ko jàpp ñu jàpp bu ko wan ginnaaw ñu wan ginnaaw waaye nag damaa bëgg loolu ngay wax lu ma la ñëwati ngeen gisee di njabootu sëriñ muy fédération dama bëgg nga dugal sa loxo ci fédération waa fédération bi ñëpp seen bopp ci mbir mi ndax fii gën la sëriñ bi nekk li ñu wax léegi fii jaroon na dëkk yëpp ñu tuddee ko sëriñ jóge ndax li li sëriñ bi def bari na ñu ko sëriñ bari na ñu ko jëmul nag bari na ñu ko jëmul sëñ bee tax ñu leen di ku fi mën a am baat rek sëñ bee tax ñu am baat ndax sëñ Badou moo waxoon ne xajoon naa leen xajoo seen i banque sëriñ bi lim dajale bari na ñoo xam ne bu ñu ko dajale woon daw nañ waaye moom nag day sëriñ bu baax di sëriñ Fall moo waral bu ñëw mu mu taaw def gën a dëgër waaye nag dañoo bëgg njabootu sëriñ Fall yi yéen a des sëriñ Fall njaboot yéen sëriñ bi ñoom la gën a bëgg ci ñoom moo tax ñu ne ñu fas yéenee mel na ñoom ndax sëriñ Fallu kat. sëñ Tuubaa dafa woowoon mbokk yi woo dongo yi daan na dongo yi jàppal leen ma mbokk yi ndax am leen ma dongo yi ndax ñoom laa am dañ toll ne ñoom képp ca mbokk ya dem dongo ya kon nag dongo dongo lañ ko dongo yaa ngi ñu wasalaamaaleykum biliwaat kano sunu sunu pas-pas noo ngi nuyu baax sëriñ Moustapha Silla moom Cheikh Modou Fallilu Fall borom ñaari Baay Fall di la siyaar di ñaanal yàlla suñu borom guddal saw fan di wéral moom mii lu bare bare moo ko def ci moom daan naan ñu jaawale waaw buñ ma mësaane gis daan naan maanaam sama ji loolee nag yàgg lool muy koo xamante ne dama koy faral di jaawaloo yow boo demoon ba ci digg tubaab yi tamit lu ñu la séenee xam ne ab bay fal loolee nag sa diggante ak sëriñ bi la loo ci liggéey baam ko aw melo dafa am solo ndax melo dina tax ñu bàyyi la xel ak ci lu mën ci doon waaye sa melo bi sa suñ la séenee rek xam ne taalibe Cheikh Ibrahima Fall te loolu rek am mm-hmm. solo kon su ko defee ñu passé déglu bismillahi rahmaani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu cheikh mahamadou fadal yal na yàlla na ko jotay nuyu mboolem ko loolu jox na nuyoo sëriñ Fall bi nga xam ne moom ay bi nga xam ne moo fa jotaayu man kenn ak sëriñ Bada Sall di ñaan ci barke sëriñ jàmm yi nga xam ne moom la ñu dëgmal bokk yi di ci bëgg a jublu muy di jëm ci suuf Sénégal bi yàlla ci moom la yàlla dana ko def Abdoulaye bu jógee ci sëñ Mountakha ci moom la jëm jaaree dem ci Cheikh Mahamadou Bachir bi nga xam ne mooy jëm jël suñu fataa bi nga xam mooy kan di leen xamal ne bis bii bisu sëñ Fallu lu ci waay def yëpp nañu ko jàppal nañu ko neex na parce que yéen ñi ci def seen alal ak bu mën a doon ñu ñaan ba ci sëñ Fallu yàlla ba doog ñaan di nuyu maire di nuyu maire Badou Badou Diouf mi ak sa sama xarit jawar yàgg nañ yàgg boo xam ne dama yàggee Badou dina yàggee jawar di siyaar di siyaar sama bopp yi kii lu ma gis jaram laaj ma ko tax ku am am boole am boole ko tax baax euh, ak sëriñ Abdou Asis bi nga xam ne waaw maa ngi ci biir di jël vidéo sëñ bi may wax nii ci biir bâche bi fii Duba ngay def dafa tuur Duba. damay jéem te ak taalibe rek ci xanaa kay képp ku bëgg Sëñ Tuubaa nag yaakaar am nañu ay am ndox bi ci taxawal rek loolu nag leer boo ko bay boo ko say Sëñ Tuubaa la am loolu dong nag lim gëj a ngi kenn ku ne di ma jéem waaye lan may jéem sama gëm ci Sëñ Tuubaa moom laa koy defee rek ma ko gëm ñu delloo si lépp ci sëñ gis nga fi mu ne adduna jeex na tàkk jeexul sama waaye li ci des nag ku boole fi ñëw doo mën a émergence li gën a yées nag ci adduna mooy nga yaakaar mag boole nga mag ñi kenn ku beru am kenn ku ci bëgg sëy bopp kenn ku dem rek nekk seen li kap kapat seen yoon waaye gaay gaay gaay gaay ñaar sëñ Tuba Alaaji Malik Kajoor ak Jolof rek la ak Saalum ak Bawal kenn ku beru am waaye dañoo xam lu yàlla bind yoon bi beru ñu nekk li kap kapat dañ góorgóor ak ak gor boo dee yori tànk di waaxu nit gën yàlla la sàkk mu ne mu def leneen waaye dafa bëgg nit ba tax mu sàkk lu ñu war a jariñu nit ko waaye nag fexe ba ñàkk ba ñu jariñu moom wut na ngeen góorgóorlu jaamu yàlla xam ne lu mën a xew jaamu yàlla rek moo fi la cay dolli ko mooy ñu fokk suñu bopp te nu ko liggéey ndax as góor su nangoo liggéey rek ko rek kon nag sant nañ bu baax a baax bu leen ma jiñ dara mënuma dara ab dombalaa bu nekk di tëj nekk di yàgg suñ fa lu mooy sama sëriñ suñ pas-pas mënu ko man sama pas-pas laa bu ma jaaree ne nangam ma ñaan takk ma téere bi ko ma mënu ma mais gis naa ñëpp rek bàyyiwuma as nag lii mu def rek la ma def man noonu laa def. d'accord yëpp yëpp boo dee ba yàgg dara lu rëy ba képp si bopp Sëriñ Tuubaa dañ dañ am li ñu am jërëjëf nit nag nit boo ko defoon nag wala nga xam ne kii yéen a yow dama naan as mooy ay bopp rek man nag bu ma amoon at ma ci biir yéene na loolu daal yàgg na kenn kenn du la kenn du la moom nag laa mën a li gis nag ay jàll la te wóorul am na lu wóorul nag ndax fi ne moo yor ay milliards est-ce que as ah kon daal li ma ñëw mooy maa ngi leen am ñaari góor ñu def ko ñu nekk bu ñu mën a jox ko ñaar bu ñu nekk loole ñu yàq si waaye kat boobu si xaram nag ko waaye nag ah man dama cee génn génn waaye nañ jàpp si xaroo jàngal jàngal kon nag nañ góorgóorlu rek sant ñi Amadou kon yéen a ngi leen di wax yabal gaa ko parce que moom mu ne noonu samay naaw leen dañuy waaye gis toog ko koo tax maanaam man dëkkam ndax sagar day jege askan man ci biir waaye nag ñoo xam ne lu mën a xew rek biir la doon laaj bi nañ ko def laaj bi nag ku fi ne def ci tax da ko dugg ñu ne seen banque doon tey bii da nga leen teg banque dañ leen teg dañ leen teg teg leen ko ba nag waaye dina yokku kii nag moom maam moom dañoo bokk lépp juróomi ak ak ñaar jigéen bi gëm ma yow teg nekk ki ko lu yéen guddi ci man ngay dal waaye nag moom bëgg amee gan bëgg ko yóbbu fenn gestaanam laa ko yóbbu fii mu toog bokku fee toog naa ko ne toogal banque ba mu la waaw banque ci war a toog waaye yebu ma yebu ma man ma yàlla na yàlla mosal defal na jàmm lu góorgóorlu rek lii nag dama ne ko dama ne woon kenn ko dem kenn ma ci def ndax dajewal sëñ Fallu dama ko man ndax magul sëñ Fallu ñun fomm ku fomm sëñ Fallu yëpp rek ma fomm ma ne la ah dina déglu dina déglu déglu ba ñëw mënu mënu ma laa loo bëgg dinaa ko bëgg loo bañ danaa ko foofu laa mën a yem dama jël man yàlla du faral te ñun quoi ma xarit la moom moom xam na ne bàyyi faam la góorgóorlu baax a baax mbooloo maa ngi sa loxo mbooloo mi ne tax mu def sa loxo mooy bu liggéeyoo ko liggéeyoo ko ko man yàlla dañoo boole yu ay góor ay kër yi Babacar Seck moo jiite boole politique yi ak jiw ji may wax ñu ne la Omar moo jiite politique yi nga xam ne ñu ngi dul seen dinaa leen mën a tey bàyyi sax bàyyi tax waaye Cheikh la la ñu ko ñàkk a bañ waaye dee leen solu rafet tey xeeñu lu neex ndax ginnaaw léegi mënu leen jàmm yàlla bu mag fexeel ba joxe dañuy góorgóorlu amul suñu bëri bu ñu ñu koy wàcc ginnaaw lañ koy wàcc góorgóorlu su ci des nag def moom ku jëful doo mën a ginnaaw jëf nga daan def nga mën yëf yi dana soppeeku waaye li ma la wax ci milliards yi moom da koy da koy jàpp man sama sëriñ ñëwul dox dox da ngeen am ñoo ñam man ko doxalee moom te man mënuma ko waaye man ki ma àndal laa wóor yàlla dafa jàpp mayul góor mayul jigéen mayul mag mayul ndaw waaw di ñaan di ñaan di ñaan di ñaan jigéen yi jigéen yi boobu nag may xam lu nekk ba te yàlla mu doon leen yàlla defal leen jàpp te li ngeen yéene ko yëpp yëpp yëpp borom ko yàlla waaye na ngeen muñ nag ay wax jàpp nag ak kenn bu mënoon a am juróom fukk mënatoo am juróom dem ba lijjanti am juróom digg na diggu diggi la koo mën a def suba nga togg sax ak jox say gone ngay doog doog ba adduna neexee neexoon na adduna soppeeku na bu leen soppeeku mukk génn ko ci seen borom da ngeen leen di muñal te bàyyi waxi ko lépp lay dóomu dóomu dara jëm wutal loo ko jafalu set loolu dara dara nga defal waaye nag am na ci doom képp ko góorgóorlu leen yàlla góor ko neexul kenn du jaamu yàlla ku nekk jafe-jafe jëf da ngay bolof sol lu set sangu ba set jàpp jublu xam ne da ko ñaan may dafa ko neexul noo def may waaye daf bëgg ko yëpp yëpp yëpp góorgóorlu yàlla taxaw asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw voilà topp topp topp topp sant ñoom Fane ak ñoom ñëpp rek. Thank you. waaw dañ ko wax tàllal loxo yi tey waxaat yi sëpp na góor a toog jàng moom ñu yeewee ko rek waaw amin bakki min amin bakki amin bakki amin bakki min min bakki min amin bakki min amin Mbacke min raayoo leen góor a góor a dugg sëñ bi nee na nga jàng anamu ay bismillah sëriñ bi

Thank you. Thank you. Thank you. أقوى barke Serigne Touba euh, yow moom sa bis moom waxuma la sax ñun ñi nekk ci kër Serigne bi waaye jàngkat yëpp ku ne war na laa fekk sa bis bi ndax noonu nga demee ak ñoom yàlla na yàlla defal tawféex li la Serigne bi wax rek Serigne bi yow la am yow it moom nga am maa ngi leen jàmm di siyaare sa soxna yu baax yi ba dina sunu bàjjen soxna Awa moom sunu bàjjen la sunu xarita mën naa ni bisu set yu nekk moo woonu téléphone euh, wax ñu cofeel bu mu am ci ñun waaye loolu daay yaatu lépp rek suñu borom ñu ngi ko jaarale ci yow yow da ngay wax ni jàngkat xamoo ko mën a jàng ku la yëg nga xam te loolu nga àndi ak ñun moo waral buñ tekki woon ñu baas yi sax danañ toog jàngal la ndax yaa nu yar ci kër sëriñ bi ba noppi baax lool te yiw walaay ndeysaan. problème mooy mënoo jàng par réew loolu moom loolu mooy foofu mooy foofu. walaay suñu as kontaan bu baax suñu bala ñu ngi leen di ñaanal yàlla tawfeex a Almami Camara mu sëñ soxna soxna Diarra mu sëñ Bass Khoudia moom Cheikh Awa Balla maa ngi koy baax a baax ak Serigne Cheikh Soxna ak sunu mag yëpp yàlla nañ ko fekkee du bëree bëri parce que seen tubaab Baye Modou Fall maa ngi lay bu baax a baax. góor as ne na xolam sedd na bu baax wax dëgg yàlla dama ko doon bañ a wax ci biir jàngkat yi waaye as tax ne ma ñaar ñoo jàngal muy góor a ak Abdoulahi Lo ñoom ñoo jàngal samay jàng keneen ku ñëw nag waaw ci nga bokk waaye dara jëy Sëñ Tuubaa loolee la ko waxee tey tey xat lool samedi tay bii xat na lool ci yéen jàngkat yi waaye bàyyi nga lépp dal di dikk ngir yàlla jëmmi Falilu as nag na xam na loolu baax a baax nee na mi ngi ñaan ci dara gi sëriñ Fallu mboolem fu nag jàngatu xasida di yàgg yàlla la ko sunu borom weesale te mu boole ko kattan ak wér ak doole ak taraanga yi xasida yàlla bu la ci kenn ëppale ci barkeb Cheikhul Khadim soxna nday si moom Cheikh Modou Fadal ñoo nuyu bu baax di la bégee bu baax xam naa ne li la téq moo tax ngay sóoba ñëw waaye su digganteeg as wax dëgg yàlla diggante samedi ak dimanche la bis ndoxu ji te it ngeen bokk sëriñ muy Alaaji Falilu nga bàyyi lépp bàyyi nga nekkoon yëpp ne faw balaa bis bee jeex ba dikk fekke bis bis bi waaye xanaa xamoon ne sax fii nga dikkee fi la baaxee xam nga tax loo gis lu ne cat la moo ca jël baaxe sax cat laa gën a ñëw te fi nga dikkee fi la baaxee doomi sëñ Fallu ji wax bañaan nga dikk loolu daw feexi sëñ Tuubaa ay noonu lay ñaan sa darajay soppe ba sa darajay yaakaar ñi mu yàlla di Fallu Mbàkke borom indi sunu borom yàggal la fi te wéral la sëñ Fallu nag moom mooy Sénégal sëñ Fallu mooy Sénégal dafa ne woon ma taalib bëgg a seex du ma doom ju bëgg daraja damaa seey ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa seey ci man sono deg si ma waxoon ne maa ngi ci biir sëñ Tuubaa fekkee nañ may gis di fu ngeen ma gis doomi borom Tuubaa ngeen di gis bu koy sëñ fan la koon jindi nga jël si lépp jox ko muy sa yaakaar yi tey ak ëllëg ngay jàmbaar joo xamante ne sëñ Fallu rek ngay noyyee ba pare ñi lay fekk ci sa appartement bii di la wax yitte nga koy saafara bari la loolee nag lépp sëñ Fallu la as na xolam sedd la bu baax ak Cheikh Almaami Kamara bii nga xamante ne yow moo leen ku la xam rek Cheikh Almaami mii bokk na ndax Cheikh Almaami moom fa mën a yaatal te yaatal li muy yaatal moom li mu ciy séntu mooy jëmmi sëñ Tuubaa rek. kon moom it maa ngi koy baax di ko siyaare bu baax waaye discours bi mu def fii jàpp na ma trop discours bi mu def fii barki sëñ Tuubaa dafa jàpp maa ngi lay ñaanal yàlla su borom guddal saw fan discours bu garaaw la barki sëñ Tuubaa sëñ Modou Fall suñu xool seet na baax Modou Faye rajo jërëjëf taxawaay yu am solo yi waaw waaw am na waaw. waaw nee na teraanga ji soxna nday si moom sëñ Fallu moo ko indi jox ko sëñ As mi nee na Cheikh Almaani lii nag duñ ne buleet ci soxna si moom sëñ Fallu nee na kurus ta tànk a na rawatina nga jëm bu duggee ci am noppam mu def teraanga ji daal di ko indi jox la ko. démb rek ci guddi. nee na démb rek ci guddi. nee na jàngi soxna Kine Saliou yi. soxna Maam Mbar Mbacke moom Cheikh Modou Fadal. moom Cheikh Ibra Fall. moom Sëñ Fallu. nee na soxna Maam Xari Mbacke moom Cheikh Ibrahima Mbacke moom Sëñ Fallu dana fu soxna Ndey si ni dinaa ko wëri. nee na ne jàngam yi jàpp na. te kenn mënu ko ci jàngam yi. te moom nii la ko doon tuddee mooy jàmbaar nee na sant na as baax Bienvenue sur Salam Vision.